bismillah ahousubillahi min asheytaan irajim bismillahi irahmaniirahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul xoqdatan min lisaani yafahu xawli yi mbokk yi ginnaaw bi ñu leen nuyoo ñu ñëwaat ak yéen incha allahu ci guddi naafila yi mu di guddi ga ku ci julli ñeenti raka raka bu ci nekk fatiha ak alam nasara ak qul huwallahu ñetti yoon baamtu ko guddi juróomeel ga ku ci julli ñeenti rakaha raka bu ci nekk fatiha ak alam nasara ak qul allahu ñetti yoon dana mel ni ko xaj junni yoon xumra junni yoon dees na ko musal ci ak ñàkk dees na dolli wërsëgam taxaraf bu ci nekk dees na ci bind ñaari malaaka yuy far ay ñaateefam di bind ay yiwam di ko yëkkatal ay daraja ba bis bay dellu si déwén incha allah te bu fato dees na ko bindal tuyaabay ku ci jihaat te des na ko jéggal bàkkaaram yépp te des na ko musal ci méteetu dee te faw dana am ngërëmul yàlla te bu faatoo des na ko ubbil ci bàmmeelam buntu àjjana mu di fa yewwoo ba kero bis penc ba jërë ngeen jëf bismillah auzu